équipe nationale moom ñëw fi moom euh, mbégte mbégte bu mag la parce que euh, sol maillot bi moom amul lenn lu ko gën a amul lenn lu ko gën a donc euh, ñëw fi sol maillot bi voilà mbégte la contentement après bi tamit ñu ngi dund bu baax donc vraiment amul lenn lu ñu lu ñu wax ko à part mbégte la quoi. <laughs> ñu ko préparé ak bu mag parce que voilà amul lenn lu ñu. lu ñu importé lu ñu important lu dul lu dul gagné match bi donc euh, groupe bi neex na quotidien beeg yëpp euh, voilà ñu ngi euh, ñu ngi liggéey pour loolu donc dinañ def le maximum pour pour gagner match bi. non mbégte la parce que déjà ñëw fii rëy na après gis public bi tamit suñu ginnaaw loolu daf ñuy gën a yokk daf ñuy gën a yokk jom donc ñu ngi voilà tey tey séance bi neexoon na mais comme ni ñu ko gisee ñëpp ñëwaguñu mais bon. Euh, déjà euh, laal bal bi public bi donc euh, mbégte la ko donc ñun pare nañ quoi pour pour pour ñafe comme niñ naan comme niñ koy defee. match bi kañ am na solo parce que dernier match la te fii la suñu suñu kanam public donc foo foo foo ñu sérieux ba match bi jeex donc instant yi amuñu benn benn benn xalaat pour wax ne. voilà ñun ñun ñu ngi fii pour liggéey pour def pour def le maximum comme ni ma ko waxee match bi c'est important il ñu def tout pour génne ko. ñëpp ñëw comme nañ ko daan defee rek ñëpp ñëw mu nekk fête bu rëy ñu def le maximum ñu yëngal ci kaw supporters yëngal ci kaw ñu yëngal ci suuf Sénégal gagné.